lu ci mel ni benn terrain bu vingt neuf hectares boo xam si ni valeur cent milliards la ñu séddee ko euh, à deux milliards par le régime Abdoulaye Wade ci société bi nga xam si moo di société xarafi euh, ba tey amaan na cinq cent soixante treize virgule deux cent soixante quatre mètres carrés attribué à Farba ak Ismaïla Ngom yi nga xam ne à Daaka Xolpa ak Bambilor ci une journée 6 octobre 2023 euh, terrain yëpp boo calculé mi ngi toll ci 13 euh, milliards scandale faussier boobu ak léegi ñu ngi koy tudd Sénégal comme si que euh, ces régime bi fi nekkoon dafa mel ni dañoo li nga xam mais nous sommes en face de la foire xam nga foire bi ñaata la woon hectare la foire à peu près 137 hectares la woon léegi foire bi ci des presque 30 hectares c'est-à-dire. li wër foire bi yëpp te ndeegoon ci foire yëpp dagg nañ ko jaay li ma gën a metti dama dem Maroc ñu ne ma sa avion de escale aéroport Casablanca ma escale Casablanca jëlaat avion doog a dem aéroport Marrakech yaa l' aéroport de Rabat Cameroun gii lu dee gi nga xam ne ñoo gën a avancé ci li ma jàpp man dama ñëw wàcc aéroport Yaoundé bi ma waree ñibbi si Sénégal. sama vol benn bi tardé ñu né ma su la nexé nga dem aéroport Douala nga jël benen vol bi j'ai compris que amnañ aéroport Yaoundé am nañ aéroport Douala comment un pays ambitieux peut avoir un seul et unique aéroport ça pose problème et deal bi mo doon aéroport bi maké bi mu ñëwee jox nako Turquie pour ñu gérer Turquie né suñu fi bayé aéroport bi muy dox sen bédu dox ñu profito japp aéroport bi dogot dogotee ko bu mu jeex Nous avons des problèmes fonciers xool problème foncier Sénégal pour moi, nous avons def réforme foncière pour walu le ji ñu sécuriser bi jot ci bu nous ne dafa soxla ay suuf ñu ne ko duñ la ko jox duñ des ab étranger hectares parce que commencé depuis le parc socialiste régime parti socialiste ñu dëkk almadi yëpp ay mètre carré 100 francs lañ doon jëndee ci jamonoy parti socialiste dem nañ ba almadi léegi au mètre carré mètre carré deux millions ci valeur foncière et Sénégal suufam tey moo gën a seer kon ça veut dire que man duma am yow doo am suñuy doom duñu am parce que y a un système qui est mis en place pour maq suufu sénégalais pour man loolu yëfu dëmm la dëmmisme foncier laa tuddee woon nga dem ci littoral bi nga xamni dafa am luñu wax lu côte maritime c'est-à-dire on doit pas construire ci wetu tefes à hauteur de 120 demal xol hôtel yi nekk fi ala xaw ma Radisson terum ñoom ñep ci géej gi lañ construire restaurant La Payotte ak ñoom ñëpp ci géej gi lañ construire légui ñun wa Sénégal wa Dakar on n'a pas droit à la mer parce que man du dem Radisson nan dama fay ndéké kon mënu ma am accès ci géej bi c'est un problème nga dem géejawaay filaawo yi fi mu mhm. ba Malika ñu dag filaawo yi daggate ko jox ay terrain bi ñuy neexal foofu ay mbeur lañ ko jox ay ay ay rappeurs yooyu ñam lañ. parce que pour bañ ñu wax té filaawo yi ñoo leen fixer les dunes de sable pour que avancer de la mer bañ am donc pour man euh ci affaire bombe foncière bi man awma ci sa képp ko xam am nga ci soufa Sénégal lo xam yello yelloo ko wala amin bi du yoon nañ ko enquête te ñu nangu ko delloo ko askan naa la doon benn révélation xam nga quand Mbaalo xam nga ko. Mm-hmm. jaay nañ ko yëgoo ko quand Mbaalo bii dañ ko jëlool may ko benn sëriñ sëriñ bi jël ko jaay ko benn benn homme d'affaires mu jaay ko ko cinq milliards homme d'affaires bi jël ko jaay ko chinois te foofu ay policiers ñoo ko doon nekk te Sénégal ngay gis policier bu liggéey ba à la retraite amul kër. Sénégal ngay gis kat bu jàngale plus de 30 ans amul kër waaw ah, léegi nag yooyu il faut ñu lëjënti ko. Euh, imagine yenn yenn yenn hectares yi ñu attribuer ko kenn nit ñu tolloog ay 16 ay 16 16 hectares. wala lu ko ah, mais kan lañ ko attribuer Farba Farba nga ah parce qu'il était un projet de Macky Sall. léegi nag nañ ko lijjanti mu leer loolu dong la. ça veut dire que yoon def liggéeyam rek. exactement kon xam naa yooyu dina bokk ci li ñuy xaar ci fële muy assemblée nationale ba euh, gis nañ ko fi keroog euh, muy son excellence de la république président Bassirou Diomaye fay ki nga xam se ni moo di euh, Télé France 2 accordé ko benn interview bi interview boobu génn na ci nag wax li nga xam se ni moo di militaire français yi nga xam se ni nekk ñoo ñoo am base fii ci Sénégal boo xoolee sénégalais.